jàmbaarisme jeex na ci politique c'est révolu ça l'existentialisme tax na nit à la recherche de d'exister sur le plan politique tax na nit di def loo xamante ne sax mosu ko bëgg mais malheureusement comme on dit c'est c'est le droit en tant qu'homme politique mm-hmm. mais sooy andi des réponses di contredire le gouvernement il faut apporter des réponses précises par rapport à certaines déclarations dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw Samba eh, eh, déglu nga également cette conférence de presse du gouvernement euh, plusieurs ministres aujourd'hui yoo xam ne jàkkaarloo nañu ak askan wi pas mal de questions également ñëwaat nañu ci ban lecture nga ci def Euh, merci beaucoup Fatou Abdou euh, je l'avais oublié tout à l'heure donc euh, à ne pas saluer donc mes co-débatteurs monsieur Thiam et monsieur Fall maa ngi leen baax a baax a baax a baax donc leen jox seen wàccuwaay euh, di jaale le département de Birkelane rawatina donc la commune de Mabo le village de Kër Hamadou nga xam ne ñoom ñoo ñàkk Tamsir Cissé te ñu euh, rayon ko fii ci parcelle donc di jaale képp koo xam ne aussi ñàkk nga sa doom ci li nga xam ne moom moo am barke démb du ñu ci bari sax ils ont été tués par arme à feu parce que les qui sont là euh, les qui là euh, euh, que font les médecins. autopsie bi les autopsies sont la ok donc yëpp yor nañ ko. donc ñu ngi leen di jàll bu baax a baax di massawu les blessures. di leen massawu bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci kaso yi plus de quatre cent et quelques personnes ñu ngi leen di xool bu baax a baax ñoom itam di xool seen njaboot. euh, en l'occurrence donc à sa tête général du parti PASTEF monsieur Bassirou Diomaye Faye mhm. nga xam ne donc moom bu ko limee rek lim ne ñëpp ñoo xam ne yéen a ci biir kaso bi ngir la cause noble donc de ça euh, euh, mon ami et frère Adama dama ko yërëm parce que li tax mu yërëm ko mooy ñoom dañuy def seen mbir ba pare ne ko demal def service après vente te après que loolu du sotti parce que Sénégal yi ndeysaan dañu lay xool après dañu lay yërëm sax yow de défendre jël gouvernement parce que ñoom yàgg nañ ko wax ñu noonu dañu ne woon dañuy def rendez-vous du gouvernement avec le peuple def seen conférence de presse euh, tey bi ñu demee tey conférence de presse bi moom mu ngi nii toog mun lax ni ñaata ministre ñoo fa nekkoon xamul ñaata ministre ñoo fa nekkoon mënul laa wax ñaata ministre ñoo fa nekkoon mm-hmm. il a dit tout nee na ñeent ministre ñoo fa nekkoon xamul juróom mm-hmm. non non ñaata ministre ñoo fa nekkoon développé rek après non non non non non non non Samba vas-y xamu ko donc c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu am juróom-ñaari ministre juróom-ñaari ministre ñu taxaw ne dañuy jàkkaarloog askan bi pour wax ak ñoom li nga xam ne mooy soxla sénégalais yi ñoom bi ñu ñëwee dañoo def tentative de réponse donc à la presse internationale gis nga li ñu doon ah, def tey mais li ñu def war nañu wax ak askan wi dans ces moments les sénégalais soxla nañu yenn information yi quand même. malheureusement dañoo ñëw def hors sujet. Hmm. bu fekkoon ce des élèves donné un sujet de dissertation leen disserté leen bu ñëwee du ma leen may sax zéro mais moins deux laa leen di may. Ah oui parce que xam nga lu tax tey lañ gis ay ministres yoo xam ne ñu ngi ñëw toog ministre des forces armées ministre de l'intérieur. Hmm. ministre de la justice. ministre du commerce le premier ministre ministre de l'élevage et ministre des sports juróom-ñaari ministre ñëw toog juróom-ñaari ñëw toog jël Sénégalais yi du début jusqu'à la fin li presse internationale développée moom lañ doon répondre di jéem a justifier yu ñoom seen position amul waar ku ëmb sa sanqal ëmb sa sutura gis nga nous les pays africains là jusqu'à présent nous sommes dans l'impérialisme nous jusqu'à présent nous sommes dans la néocolonisation jusqu'à présent réew tubaab yi ñoom ñoo yore sam koom-koom di ko investir fii nga xam ne mooy Sénégal et première facteur d'investissement moom mooy l'apaisement du climat social donc bailleurs yi bi ñu gisee ne apaisement du climat social amul Sénégal ñoom ñu tirer la sonnette d'alarme tirer waat ko tirer waat ko depuis mars 2021 jusqu'en 2023 ñoo xam ne lii du sotti moo tax ñoom ñu téye seen loxo aujourd'hui où est le ministre du euh, euh, des finances nekkul Sénégal mu ngi à l'extérieur dem di lebi euh, barke démb gis nga euh, journal ñu ne on a eu cent dix milliards donc de la banque mondiale ñu ngi lebi parce que pourquoi ñuy lebi parce que les bailleurs jusqu'à présent pare nañ ci li nga xam ne mooy la confiance bi ñu accordé woon donc à ce pays lan moo ko waral parce que amatuñu climat apaisement du climat social parce que apaisement du climat social mooy premier facteur d'investissement kon boo ko pertee amutoo li nga xam ne mooy gaz de de sécurité la et de garantie man je pensais que aujourd'hui su ma toogee gis leen ñoom ñu war a répondre à la presse internationale dama jàpp ne surga balaa nga tontu ki nga xam ne du sa njaatige tontu sa njaatige mais mais yéen leen di jiin vous êtes les premiers à se glorifier quand un député français wala bokk la France ou les États-Unis di di immiscé wu ci sunu ci sunu doxalinu réew dañuy wax stop yéenay njëkk ne voyez que ne même ñi nga xam ne ñu ngi biti réew sax ñi ngi wax ne ay dérive moom moo am Sénégal pourquoi aujourd'hui quand même l'État n'a pas le droit mu leeral Sénégalais yi mais également l'international surga jàmbur bu ñëwee sama tool di béy ci sama tool dama ko wax jëf parce que du sama surga kon boog su ñëwee sama waar fekk may booyal mu ñëw di ma ci jàppale dama ko wax ne jërëjëf mais sama surga bi ma jàpp di ko fay weer bu dee kooku dafa war a ñëw wax ci samay soxla aujourd'hui man jàppoon naa ne bu ñu ñëwee dinañ wax ci jiw bi nous som dans dans la li ce n'est plus de l'hivernage mais nous sommes dans l'hivernage taw na Kolda taw na Tamba taw na Ziguinchor heure bi dama foog ne dañ may wax ci jiw soo demee Birkelante xam nga ñaata la ñuy joxe jiw kër gu nekk ñu ngi koy jox téeméeri kilo téeméeri kilo yooyu boo ko xoolee doo ci am sax juróomi kal juróomi kal mooy juróom fukki kilo kemb doo ko am ñaar fukki kilo kemb ak juróom doo ko am waxuñ ci aujourd'hui le paysan sénégalais est en train de mourir à petit feu parce que amul jiw amul intrant agricole malgré que ñoom jël nañ seen cent milliards def ko ci li nga xam ne mooy budget bi te budget boobu noonu tey boo demee ñoom seen bopp ñoom ñoo koy naan seen biir ñoo koy lekk seen biir béykatu café de Rome yi li Moustapha Cissé Lo doon wax ñoom ñoo koy lekkaat seen biir aujourd'hui nous sommes à l'approche de la de, de la tabaski est-ce que yow nga xar le ministre de l'élevage était là-bas déglu ko discours bi jusqu'à la fin waxul sax lu jëm ci xar waxul sax lu jëm ci jiw kooku les les les les les besoins des Sénégalais les intéressent même lii nag moo lay won ne ñoom Sénégal ñoru leen mbiru Sénégal ñoru leen xam nga lan moo leen ñor mooy ñoom ñu def ba li nga xam ne jël nañ ko ci bailleurs yi nu muy giixee lekk nañ ko te munta rees je prends un rapport le rapport donc de la cour des comptes dégg nga ñu waxati ci et pourtant jusqu'à présent les gens euh, en donc justice def ci yoonam ministre ministre de la justice mm-hmm. tey man jàppoon naa ne heure bi waroon nañu wax ne diw ak diw ak diw mi yéen yéen a lekk milliards yi donc yéen a ngi fii leen leen di teg ñoom ñoo doon wax ne le temps de la justice n'est pas donc le temps des hommes mhm. pourquoi ñoom décision de justice boo xam ne amoon na sur l'affaire Mame Mbaye Niang Ousmane dañ ko génnee le même jour Mame Mbaye def ci appel lan moo tax affaire bii nii ministre mu ne amul décision de justice jusqu'à présent génnul nee na jours ñu ngi bind décision de justice 15 jours fukki fan ak juróom waa ministère de la justice ak ñoom waa tribunal nee na ñu ngi bind décision de la justice mhm. yi ñor na leen kon man li ma gis fii c'est très wax naa la ko mooy que ni comme le quatrième pouvoir n'existe pas dans ce pays là parce que le quatrième pouvoir li nga xam ne mooy

donc comme le quatrième pouvoir n'existe pas donc au niveau national au niveau international le quatrième pouvoir existe génne li nga xam ne moom moo am ci biir réew mi teg ko ne ko dàng ne ko fang ñëpp di ko teg seen bët moo tax nag ñoom ñu tiit commencé ne dañuy. Ah, alors euh, léegi ma jeexal fenn mhm. ma jeexal comment on peut parler donc aujourd'hui de actualité sans parler donc des sujets d' actualité ñoom comme ñoom xam nañ alchimie bi ñu koy mën a defee sénégalais ñu leen di xaar parce que sénégalais ñooy jënd tabaski sénégalais ñooy jënd jiw ñoom ñooy dem tool te loolu moo leen soxal. très bien c'était yi nga doon xaar malheureusement jëm ci mbirum Ousmane Sonko le plus souvent sax daanaka ci ci loolu la ñu wax euh, bu dee Ismaïla Madior Fall ci question taskatu xibaar bi ko laaj mbirum Ousmane Sonko fi mu toll mu jàpp ne la décision est en train d'être rédigée bu ko rédigé ba pare dañu yegg ci condamnation lan la ñu mën a comprendre foofu lañ ci mën a leeralal. merci Fatou Abdou euh, li ma ci mën wax mooy <coughs> d'abord sur la communication du boo ma ko permettre. bien mhm. gouvernement. bi euh, bi ma ci delloo ay bribes dama jàpp ne peut-être te man laa parce que nekk ki mënoo seetal sa bopp opinion publique tey dañoo takkal état bi ne dafa am ci manifestation yi gis nañ ci ñoo xam ne duñ bokkuñ ci force de l'ordre yi gis nañ ay vidéo yu ñu truffé mhm. boo xoolee sax euh, premier ministre xaw na ko projet ne affaire yi dafa am ay montage et techniquement ils peuvent expliquer ça bon boo xoolee aussi Ismaïla Madior Fall aussi même euh, euh, le pre le ministre toujours le ministre de l'intérieur ñëwaat na si di expliquer le un journaliste na ko moom c'était un homme du sérail la justice il comprend comment fonctionnent les enquêtes donc man dama jàppoon ne gis naa parquet les deux procureurs de Dakar génne barki dem benn communiqué tey exercice bi gouvernement bi def dama jàpp ne exercice bi c' le parquet qui devait le moo waroon génn parce que fi ñu affaire enquête lañ toll on parle des autopsies on parle des personnes donc c' une décision de justice qui a été peut-être commentée par le gouvernement alors que dañuy wax genre euh, aujourd'hui vous parlez d'enquête vous parlez de la justice. non dama ne am les deux parquets de Dakar. Mhm. parquet bu Pikine Guédiawaye ak bu mbir mi ci loxo justice la war a des. ba tey bien mais mais pas dem ba ci loxo. non non parce que état bu gën di wax rek ak ministre les gens vont une politique parce que dañoo jàpp ne ñoom ñëpp benn bokk ñu mhm. doon opinion lu ñu les politiciens qui génn di wax day seetal seen bopp. Mhm. man li ma jàppoon ne bien que soit les lignes de régulation institutionnelles ou non institutionnelles yëpp dagg na procureur bu génn wax tamit ñu ne ko waxoo fi dara gëmuñ la mais bu génn wax tamit coloration politique lañu am bu leer ñu xam ne ne bon boo ko yaakaar lañ far mhm. dañuy politique donc cela va de soi ñii du gëm man li ma jàppoon ne ki gënoon mën a wax jekk ci wax tey situation bi wax ñaata arrestation moom wax ko ci làkk national ñëpp dégg muy procureur de la république enquêtes yi dëkk sangam ñi ngi en cours autopsie yi nangam a nangam leer la opinion bi mais c' pas le rôle puisque dañoo nekk en matière de d' enquête pas le rôle d'un ministre de régler une enquête une enquête c' est le parquet qui règle ça maintenant revenons dans l' affaire Ousmane Sonko Ousmane Sonko comme je le dis moom bokkul ci appel bi 15 jours d' yi ñu may moom bokku ci parce que bu fàtte dañ ko sur boo xoolee ci boo demee ci article les les personnes qui sont habilitées à faire appel interjeter appel procureur la euh, te am naa yaakaar du ko def procureur moo def appel ak Adji Raby Sarr bi am na partie civile la sur ses intérêts civils. Mm-hmm. ak euh, Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne ñëwoon na. fekk audience di debe la fin am na doon appel mais Ousmane Sonko amul doon ab d'appel donc les jours yi ñu doon wax naan moom la ñu xaar moom bokkul ci quinze jours intéressé wu ko deuxièmement décision de justice mun na génn benn ba jëm ba ñaari weer juge bi il a deux pour génne décision de mais kenn tënk na ko bu ëpp trois mais daal mën na génn ci 15 jours mën na génn ci 21 jours comme mën na génn ci un mois mais il a deux mois pour génne décision de justice bu génnee le président bi nga xam ne moo àtte woon moo koy signé ak greffier bi yéegoon ñoom ñaar ñoo koy signé suñ ko signé ba pare greffier bi jël décision bi notifié ko parquet su ko notifié parquet nag si la parquet doo ko jël décision bi nag dem notifié ko ki nga xam ne mooy on est en matière délictuelle parce que dañoo jógee crime ñëw ci délit dégg lañ ko tëjee donc délai de prescription yi pour les délits c'est vingt ans dix ans autant pour moi donc le parquet il a dix ans pour notifier ko décision bi Ousmane Sonko aussi bu ñu ko notifier décision bi moom it am na dix jours bu ñu ko notifier ba yóbbu ko ci prison am na dix jours pour wax na nangu na àtte bi wala nanguwu ko voilà foofu lañ toll foofu foofu la ñu toll alors nga dab ñu bu Boubacar rapidement rek ñu ñu dem ci waxtaan bi ñu ngi woon ci conférence de presse bu gouvernement bi yéen également tout à yaa ngi fa woon nge ngeen def conférence de presse pour démonter jàpp ngeen ne li ñu fa wax lépp dara amu ci fan ngeen ko teg. dëgg la euh, gouvernement bi tey nekk nañ procureur général tey gouvernement bi tey nekk nañ procureur de la république tey gouvernement bi tey nekk na avocat wu gouvernement bi ci boppam parce que tey bu fekkante dañu gis euh, premier ministre ak ay ministre am ñu toog ci kanamu télé bi di wax ay wax xamante ni ñoom seen bopp xam nañ lañuy wax euh, méngoowul ak dëgg donc là ça pose problème parce que nag dañu nekk ci état boo xamante ni dañu nekk ci mbirum manipulation ñu ngi joxoñ ndaw ñi ne dañu nekk di manipuler ñu ngi joxoñ tey immigré yi ne dañu nekk di manipuler mais ñan ñoo nekk jamono jii ñii di manipuler ñi njëkk ñi mooy état bu Sénégal la preuve ba ki dem ba gis nga li nga xamante ni moom mooy euh, la police nationale. police li ñu njëkk a def mooy génne ay images yoo xamante ni du presse moo leen ko jox génne ay images yoo xamante ni ñoom leer na leen nit ñii si seeni njoñ lañ bokk daal di koy ñëw takkal ko daal ne ay force occulte la. man dama jàpp ni police lu waroon ku mu waroon mën a bañ lu nu mel la waaye. bu ñu demee ba tey ki nga xamante ni mooy chef du gouvernement le premier ministre Amadou Ba day tey monté au créneau ñëw taxaw jàkkaarlook Sénégalais yi ak nag nekkoon ci situation boo xamante ni euh, c'était vraiment très déplorable parce que ku xam Amadou Ba gis tamit ni mu doon waxee ak ay gestam nga xam ni kii nii il te pas à l'aise loolu nag lu ko waral du lenn lu dul état bi nga xamante ni moo ngi ci Euh, dictature état bi nga xamante ni mu ngi ci manipulation parce que tey boo dégloo ministre euh, porte-parole du gouvernement Abdou Karim euh, Fofana il di que sénégalais yi nañu préparé wu pour mën a riposter donc moom moom tey xamal nañu ni tey Boubacar bu ñu ko attaqué Boubacar dafa war a mën a riposter mais kan moo attaqué question bi foofu la du Boubacar mi nga xamante ni moo toog ci biir këram ci biir saalam ñu fekk ko fa dóor ko benn balle perdue mu dee du Boubacar mi nga xamante ni moo génn ci bërëbu liggéeykaayam di dox ñu dóor ko bal mu dee du Boubacar boobu du kooku noonu mooy manifester ki attaqué mooy ki nga xamante ni moom moo ànd ak police ñu gis ko si sur les images yi nga xamante ni tey citoyen sénégalais bi moom moo ko jël filmer ko tey police mën a toog di brandir loolu nit ñii ni ñooy force occulte tey faatu sénégalais boobu noonu nga xam ne moo nekk ak police moom la gis mu yor arme di ko tiir ci population bi tey police ak état Sénégal tout daan ne ñooñu ñooy force occulte yi mais la ça pose problème tey état bi ñu jàkkaarlu mooy état bi nga xamante ni moo nekk tey créer théâtre boobu Bougane Gueye Dany ak gëm sa bopp ñu ne lañ nag lii dafay doy dafay doy te nag moom moo leen réew mi ba ku mu neex nga daal di jug wax lu la neex ku mu neex nga jug euh, xaram ndaw ñi wax lu lañ neex gis nga euh, faatu ñun ñoo dol ci ñi nga xamante ni ñoo fi ne te nag pour wan leen ni doyal nañ ci li nga xamante ni ñoom si loolu noonu la ñuy ne il va falloir que euh, mooy li président Bougane wax sànq dañoo romb jamono ji gatsa gatsa ñu ngi si ñafal ñafal parce tey sénégalais yi la majeure partie des sénégalais dañoo doyal si ñii te la majeure partie des sénégalais sont déterminés pour les faire dégager. Euh, euh, bëri na lu ñu fa dégg ci conférence de presse bi mais aujourd'hui euh, cette notion de force occulte bi nga xam ne depuis mois de mars nag sénégalais yi ñu ngi commencé di familier